Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre du Travail, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires qui accompagnent les ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, je veux les féliciter, je les encourager. ndax wax dëgg yàlla suñu xel dafa dal ci ni ngay waxee ak ñun situation bu metti bi ñuy dund fi mu ne Sénégal xamul nous bi ñu naan politique moo ko indi te ñu traversé ay courant politique yu bare bare te xamuñu woon li kon tey jaaxle nañu waaye nag alhamdulilah ba ñu amee ku mel ni ak sa équipe di nuyu sama dëkkandoo la Fall di nuyu tamit sama jarbaat ay dara ñaan di wax ne monsieur le ministre dañuy féliciter président de la république ci li mu convoqué dialogue bi parce que mënoon na ko bañ a def waaye convoqué dialogue bi pare na leen waxtaan leen ci lépp benn sujet tabou loo leen xalaat rek même sama mandat waxtan len ci ñu waxtan ci indil ko seeni conclusion mu dal di def ay projet de loi yo xam mënon na ci baña dugg tamit projet de loi yi indi révision constitution indi révision code électoral loolu du lu bees ci Sénégal parce que code électoral bi dafa évoluer amna temps bo amé carte d'identité rek voté boo amulee carte d'identité bo amé carte électeur rek voté waaye tey jii defe naa ne loolu boobu temps isoloir sax amul boo ñëwee da ngay taxaw voté nu mu la neexee euh, au sud de tout le monde tey jii loolu yëpp dañ carte d'identité dafay ànd ak carte électeur bi nekk benn ordonnance amatul bu njëkk ba boo amulee sax da ngay indi ordonnance chaque surtout nekk ci liste bi nga yore ordonnance dem naa ci benn dëkk observation élection ba ma xëyee délégué de quartier ba moo génnee urne bi takk euh, sër ne mooy euh, isoloir bi ñu def liste électeur ma gis quatre-vingt-dix comme dama doon def tour bi ma ñëwee ci ngoon gi bi ñuy bi ñuy dépouiller ma gis lu mu trois cent et quelque vote may leen ne fii quatre-vingt-dix moo fi amoon ñu ne ma c'est le vote nomade xam ngeen ne loolu amul Sénégal ku nekkul ci liste doo ci voté donc c'est pour dire que ñun suñu système électoral bi dafa évoluer ba nga xam ne tey ji ñu ciy waxtaan pour renforcer ko defe naa loolu dafay renforcer suñu démocratie kon loolu dañ la ci dañ dañuy gërëm président de la république ñu jël initiative boobu di wax ne loolu dafa dox ah li ci des nag moo di l'œuvre humaine aucune œuvre humaine ne parfaite waaye xam naa ne lii moom bu ñu ko doxalee dina yokk suñu démocratie te président mënoon na ko bañ a jël ndax bu ko jëlee nee nañu Khalifa ak Karim ñoo tax ñu def ko waaye képp ku nekk ci coup boobu da nga ciy bokk kon ñoom rek taxul ñu def ko xëy na ñoom nag ñoo fës di wax ne nag Karim wad ah, man day yakna parti socialiste la bok kon musuma jappale Karim wad waye nawna ko ndax jom ji mu andal khalifa na khalifa sama càmmiñ na ñoo bokkoon parti ah bañon andax ñun motax mu dem kon tay jii bu ki bi ñewé ba tax mu duggaat it dañ koy gërëm di ko sant di ñaan yalla na delu ci mu dekkor rek lolu moy suñu wax di wax ne monsieur le ministre euh coow dafa bare coow bare na ñu naan prisonnier politique waaw ma ne ki toj kër jàmbur borom tëdd nelaw nga taal ay oto fataa ñoo nga sànni ci ba nit ñi lakk démb bi ngay expliqué dañoo dañoo lakk ba may ni kër yi si suba président yi bug ma koy wax bu ne ma damaa gis nga sëgg ma ne ko parce que j'étais sidéré may xalaat ñu dee souffrance bi ñu dund balaa ñuy dee waaw ñoo ñu ne ay détenu politique lañu ñu politique kay da ngay des ci combat politique di wax ci euh, parce que façon bu ne gis nañ ko fi bay jël toujours Ablaye wad ak senor comme model façon campagne bu ne def nañ ko fi waye ki day jaar naan euh, monsieur Moulin jaaru fi euh, monsieur Forage jaar fi ki naan bobu amu karaw attanul rew yoyu ay farce la yo xamne campagne mais tay ji en mo nek ci politique alors que politique amul en ki ngay andal tay ngay xulol suba ki ngay xulol suba ngay andal tay motax toujours luñu ñuy nañ ko tek ci yoon waaye bu fekkee dañ ci dugal en àndaat bi day jafe dama wax ne monsieur le ministre ñun daal ànd nañ ci li ngay def kontaan nañ ci it parce que yaa ngi ñuy sécuriser parce que dañ daan tëdd guddi man de am na période boo xam ne guddi du ma nelaw ba bët set xale góor sama ko ñu dañuy toog sama bopp koñ di xaar ndax dañuy jaaxle tey jii nga ñu sécuriser ci say wax ak say jëf ñuy féliciter nag les forces de défense et de sécurité ñooñu kenn amul seen tey dañ leen di ñaanal rek gudd fan ak wér gu yaram parce que vraiment ñu ngi def seen liggéey bu rafet. te damay wax ne Sénégal lu fi waaye def foog ne nëbbu nga da ngay feeñ Mohamed Diko, Pape Gueye, la suivante.